samay wax kenn du ko transformé. am na droit joxe xalaat bu ko deex wax lu ko neex. ku nekk ak de vue ci période campagne électorale mais ça veut pas dire que da wax lu la da ngaa wax sa xalaat que dañoo war a taal sa kër suñu taalee sa kër nit ku taxaw ne maam Jaara dafa wax lii moo tax ñu def lii doo nit ku baax. dama naan maam jaara warul wax kàddu yu tegginewul hmm, effectivement waru ko wax. mais ànduma ci luy taal kër. violence moom kenn àndu ci. parce que violence bi doon am ñëpp ko gis nga taal kër. Mhm. dañoo taalul sa kër nga xam. Mhm. est-ce que war nañ nekk ci réew moo xamante ni soo àndul ak ñun rek dañ laa war a dañoo war a taal kër dañ laa war a duma ci réew moomu lañ nekk tey mhm. réew moomu lañu nekk man mii politique sama jabar ñu kar ko marché Castors dóor ba simmi réew moom lañ nekk ñooñu ñoo bëgg jël réew mi suba suñu jëlee réew mi soo nee li ñuy def baaxul ñu fekk la sa kër faat la réew moom lañ nekk réew moom lañ nekk ba maam jaara faam amul droit wax li muy wax ñu tëj làmmiñam suñ ko fekkoon maam jaara ci biir kër gi dañ koy rey mooy réew moomu réew moomu lañ toll. pourtant yëpp ci maam jaar de sëñ Modou Kara sax attaqué nañ ko. waaw loolu dinañ ci ñëw c'est-à-dire ci réew moomu lañ toll. réew moo xamante ni yow amoo droit maanaam ñee dañoo bon soo faree ci ñee dangeen ngay na bon soo faree ci fii da nga baax ci réew moomu lañ ne ñaataat ñu ngi politique Sénégal yàgg na est-ce que mës nga fi gis lii maanaam yow amoo droit yow ngom amoo droit cest da ngay toog ci télé sax di seetaan nit ñi di commentaire di la saagay ndey. Mhm. yow da ngay toog am ay nit yu taxaw ragal a wax dëgg pour bañ ko leen saaga ndey wala pour bañ ko leen kar ci réew moom lañ nekk ñi nga xam ni dañoo bañ ku wax dëgg wala ku wax dara seeni nit bëgg nekk président su leen joxee réew mi ñu jiite ko suba nit dina taxaw ne président bi deful dara ci réew ñu fekk ko biir këram ren di. est-ce que loolu c'est normal. démocratie la ñu wax noonu. Mhm. te pourtant ñoom ñoo ñu wax dañoo bëgg démocratie ci biir réew mi. démocratie bu Mame Diarra Fam amul droit wax li mu wax. démocratie la non dëkku démocratie la. mais est-ce que démocratie boobu yéen nangu woon ngeen ko parce réew mi. kenn nangu fi woon boo waxee loola kii ñu ne la ràpp tëj. ci kaso bi tamit li ko xaw a toléré rek mooy jamonoy campagne xam nga jamonoy campagne moom xaxarante la. Mhm. du wax junne yi jàpp loolu moom nangul naa ko maam jaara faam waaye nag da comme ñi ànd ak jomaay ñi cëpp ay xale lañ xañ na am na seen esprit yoo xam ne ne qui conscient mooy dugg ci kër di taal. du manque de conscience. non c'est que boo xoolee sax déglul baax li ma parce que kooku xamoo naka la def pour tabax li di këram loolu moom dafa am loo xamante ni mënuñu nangu. la dictature de la pensée unique dans ce pays. ñi bëgg diriger Sénégal suba te ñuy xëccu ni ne mbooloo mi yéen nekk seen gannaaw suba suñ nekkee jiitum réew yow ngom soo waxee taxaw ti télé wax lu leen contre ñu rendi la bëccëgu ndar kam parce que nii nii nii nii. yoruñu pouvoir te ñu ngi taal këru jàmbur nii nii nii yoruñu pouvoir ñi ngi kar ay doomu jàmbur nii nii nii yoruñu pouvoir yoruñu dara ku mu neex mooy wax Sénégal ku leen naqari duñu wax Sénégal looloo fi ne suba suñu yoree pouvoir ngom di nga toog ci télé ne président bi ni mu doxalee du yoon booy fekk la sa kër rendi la ci même guddi googu gis nañ euh, ki nga xamante ne moom moo di Serigne du Kara euh, taalibe mi doon xeex ak caravane Jomaay bi doon romb foofu la ko xam nga bañ yàq ay ay oto mag yooyu mu nekk lu ñuy ñaawlu la xam nga problème bi lan la fee à Mermoz xam nga xam nga ku nekk da ngay wax loo dund mu ngi nii gisoo image yaa ngi biig ci guddi mhm. biig ci guddi biir wakaam fii c'est à Mermoz déglul rek dama ne dëkk lii fii ci buntu Mermoz bi mooy buntu këram mhm. fa dëkk lii caravane bi moo doon jàll. lii. Mhm. lu ñuy ñaawlu la cim réew. fekk leen cest nit amoo droit far feneen su ñu jëlee réew mi dictature fi am wallaahi. parce que ñii ci seen biir kër lañ nekk gaari seen oto. li nga xamul mooy biig ci guddi. biir Mermoz. Mermoz biir biir Wakaam wallaahi am embuscade ñu wër sama oto su ma ubbiwuloon sama boîte à gants leneen la ñuy wax. Hmm? kon yow gars yi épargne la. sama embuscade sama oto femme bi ma àndal mi ngi sol musóoru Benno Bokk Yaakaar ka giré bi ñu wër oto bi mu ubbi sama boîte à gants. mais est du yaakaar ne seen yaakaar ngeen tas moo tax ñu sonal leen du du question du yoon. c'est ça qui est anormal c'est-à-dire nous sommes dans un pays boo xamante ni ñun amuñu droit far. tonton Adama foog nga des ci ci foofu noonu nga ne démb embuscade lañ def. wër sa oto démb caravane bi da doon romb. voilà man may ma am fu ma jógee. Mhm. di ñibbi sama kër. ba ma ñëwee oto bi gaare ma gis nit ñi taxaw. ma ne mhm. femme bi ma àndal à ma ne bi ma àndal. doo dindi sa musóor bi wala nga simmi yére bi parce que suñu xàmmee rek problème dina am ci saasi ñu ñëw song oto bi nii di dóor nii di dóor ci oto bi ma aj vitre yi parce que man ragaluma benn booy si Guinée Adama Fall la saaga yi jib ma bës sama boîte à gants. lan moo nekk ci boîte à sama boîte à gants man da sama damay yor gànnaay am naa autorisation bi ut naa ko parce que. kenn du ma rey ci mbedd mais bien kenn du ma rey ci mbedd. Mm. Kalashnikov. ma bës sama boîte à gants génn sama arme teg sama kaw. te pare woon nga pour pare woon nga pour jëfandikoo. déggoo li ma la wax suñu song suñu daloon ci kaw oto bi rek musiba dal. ba nga génnee loola nag léegi ñu def na. est-ce que tu comprends soxna si dindi musóor bi. ñu commencé dóor ci oto bi ma ne pin pin pin ful bi taxaw ma ne pin pin pin ful bi taxaw ma wàccee vitre bi ne xale bi ne ko sama rak man du ma ragal dama bëgg nga ubbil ma yoon bi ma dem ñibbi mi ngi sëgg gis li ma yor. ah bi nga wàccee pour mu gis li nga yor moo tax nga wàccee ñu ubbi ma accéléré dem suma yoon du ma ragal soo ragalee ñu jël sa bakkan bii parce que def nañ ko. lu dul ñaari yoon maanaam dañuy dañ lay privé de parole suba su ñu jëlee réew mi man dootuma wax ci télé hmm. man nitu média la dootuma wax ni réew mi def opposition dootul am Sénégal parce que da wax ñu fekk la sa kër la. non loolu nga foog rek non nga foog rek. loolu xam nga ko jëlagul pouvoir. di xañ nit kàddoom. ah mais yéen bi ngeen jëlagut da ngeen doon may nit ñi ñu mais bi ngeen jëlee ku wax ñu ne la nipp yóbbu boo àndut ak tam ah, soxna si ah ñaata yaa pas mal de gens soxna si am fii yëpp lan moo ko indi soxna si xam nga soxna si man damay taxaw ci dëgg mhm. nga ne ku wax rek nga jàpp tëj damay taxaw ci dëgg xam man su nekkoon Bassirou Diomaye Mara di Taali mooy président de mhm. xam naa li ma yoon fi ma yoon yeme limité su may wax ci moom xam naa fi ma yoon may article quatre-vingt mhm. xam naa fi ma yoon may mhm. ba damay jox cër l' institution qui est président la mhm. présidence de la république damay jox cër yeneen institution yi lu ma nekk nekk nekk opposant lu ma contre contre régime bi am na lu ma fu ma yoon tënk xam naa ko duma ko jéggi su ma yoon su yoon dalee sama kaw rek dama ko war a nangu xam ne yaa jàll xam ni maa jàll yoon mais malheureusement ñiy yuuxu fii yëpp xamul lu yoon wax xamuñu li yoon wax xam nga lu ñuy wax liberté d'expression la liberté d'expression est encadrée par le code pénal et le et le code de procédure pénale liberté d'expression de la presse est encadrée par le code de la presse parce que dañoo am ay textes yu baax nag ku ci ne ci métier bi nga ne dañ koo encadré ne la nii ngay waxee institution yi nii nga ciy waxee nii ngay waxee nii ngay taxawee du Sénégal nag xam nga liberté d'expression du wax lu la neex. liberté d'expression. ci campagne électorale dong laa am. waaw moo tax campagne électorale kuñ ci rey perte nga kenn du topp. Mhm. campagne waaw mhm. kuñ ci mhm. taal sa kër perte nga. perte nga voilà kenn du topp. maanaam démb su jéyee amoon wakaam ma jël bal dóor tel ci bopp booy bi perte na. est-ce que du looloo tax loolu nga xam moo tax nga génne sa sa arme. parce que kenn du ci kër maam Diarra Fam loolu xam dem taal kër. non dama ne loolu su amee. Hmm. parce que campagne électorale la. campagne électorale su ma la waxee loolu ñu ñaaw doo ma ci porter plainte. Mm-hmm. de c'est pas de la diffamation. Mm-hmm. parce que campagne électorale xaxar daal la donc xaxar la. Mm-hmm. maintenant maam Diarra Fam bi wax avis